équipement de base bi nga xam ne moom la CLD bi de produire mel na ne matale ne sunu yitte yëpp aspect yëpp génn ko domaine yëpp mu mel ni am na ay jafe-jafe yoo xam ne wax nañ ko waaye nag lu ñu wax rek du ñu fi wax lu ñu musul wax waaye dafay am yitte yoo xam ne bu ko ñëpp day yëgandoo ñàkk koo waxit day nur la ne kon ci loolu rek la ñuy insister waat gis naa ni ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ci ñoom bu liggéey de xaw a jël temps mel ni ne dañuy am jafe-jafe souvent ci seen i liggéey bu nawet amee bu commencé taw ci ñu ñëpp xam nañu ngi taw loolu it am nañu inquiétude ndax chantier yi ñu fi door fii màggal nan lay demee. est taw bi du ci yàq dara est-ce waaye mu mel ni yoon yi am na ci ay yoon yoo xam ne yàgg na lu mel ne sunu tàmbaleeku ko sama mbedd bi jaar sama kër rek mën naa ko ci joxe comme exemple am na ay guy yoo xam ne depuis ay at defoon nañ ko fi benn yoon daaw mu tëju waaye yàquwaat na lépp muy ay risques yoo xam ne parce que ci tali bi dafa nekk ci kaw pont ci kaw canal muy canal bu rëy muy insécurité euh, boo nga xam ne man jaaxal na ma sax ba sunu mbokki protection civile yi duñ ci wax ndax du ñàkk ñu koy romb euh, muy bu dara xewuti c'est c'est lu lu jafee dund la ndax insécurité la bokk na ci euh, ndox mi ñu naan mu ne su ko ñàkk di tudd donte ne bis bu set ñu tudd ko ci réunion bu mën a am waaye nag ginnaaw dañoo dëkk ak ñi bokk ci ñoom ñu koy tumuraanke di ko yëg ñu di ko yëg it mu ne su ko ñàkk tudd bu ñëwee ba fii ñu ko war a waxee faaw ñu wax bokk na ci it ñu yokk ci mbirum wér-gu-yaram subvention bi ñu ciy joxe ñu koy wooye caisse d'avance ñun yittey askan wi ak yittey dëkk bi ci la ñuy wax tax ci loolu la ñuy doxal luy doxal màggal gi lan mooy tax màggal gi mën a am ci ay anam ya mu gënee ci condition yu mu gënee loolu mooy suñu yittee may tàllal loxo yi mbokk presse bi wax nañ ne dañu bëgg am am ndaje bu ñu am ak comité bi comité bi pare pare na pour daje ak yéen ndax waxoon nañ leen fii tàndal nañ loxo ñëpp ah ñëw ñu waxtaan comme ñoo bokk dëkk bi ñu bokk événement bi la ci maanaam kenn ku ne xam ko loolu wàññiwul dara kon loolu defe nañ ne waroon a am bu yàgg la comme jël ngeen initiative bi ñu ngi leen di déglu di leen xaar def naa loolu du am benn jafe-jafe waaye bu ngeen ñëwee ngeen nangu noo diglu nag. dañ leen diglu waaye na ngeen diglu bu baax ndax li manaam rek mooy am di sant ñëpp. jëm nii bis bi ñuy waajal maanaam dayoom weesu na sax Sénégal waaye au niveau international donc lañ koy wax euh, mu nekk loo xamante ni donc mbégte lañ ci am it di ci liggéey. di ci taxaw niñ ci war a taxawee ci wàccaay lii nag door rek la parce que it sous-préfet tenir na CLDM le 7 juin tey ñu def CDD bi buñ ci jógee dinañ dem ci yeneen réunion yi euh, nga xamante ni gouverneur na def réunion dem ba ci niveau national am na ci sax réunion boo xam suivi le ministre de l'intérieur moom moo ko waral def fii au niveau donc de Touba loolu lépp day wone donc li nga xamante ne am nañ ko ci maanaam taxawaay bi nga xam état war na ko am ci ci ci ci lii di margal gi euh, du ma mën a ñëwaat nag ci secteur bu nekk donc xañ na liñ ci waxoon mais damay juste am yenn secteur yoo xam dinaa ko jukki parce que principalement jàngat bi ma ci am mooy am na ci yoo xamante ni foofu la ñu maanaam foofu lañ xañ na gën a war a mën a euh, gën a góorgóorlu Euh, parce que foofu la comité d'organisation bi gën a sox surtout am ay njàqare xañ na mais loolu ñooñ dinaa leen gën a ñaaxaat bu baax a baax euh, secteur yëpp am solo nag waaye li jëm ci wàllu eau assainissement euh, ak xañ na peut-être transport bokk na ci mais transport yi donc yaakaar naa eau assainissement daal Euh, bokk na ci secteur yi nga xam moom la moo ëpp solo donc li tax ma ni oo mooy am na jafe-jafe yoo xamante ni donc xañ na boobu fan yii ñu ngi ko doon dund euh, ci ci ci ci Touba globalement sax mu laal yeneen dëkk ci département bi et que yoo xamante ni ay yenn panne forage ak foo xamante ni donc ay faiblesse débit ci yenn forage yi yoo xamante ni donc loolu jar na ñu gën a yokkaat pas-pas yi en tout cas ñi mu interpellé pour que balaa balaa weer wi di dee ñu jéem a fexe régler problème yooyu je pense que am na engagement yoo xamante ni chef de yenn chef de service jël nañ ko ci notamment donc euh, OFOR ñi ko fi toogal ak euh, lu jëm ci wàllu également assainissement bi je pense que liñ fi wax également donc xaw na dal na xel en tout cas Euh, parce que it ku nekk xam na ni donc am na travaux yoo xamante ni donc ñu ko fi def te loolu xañ na am nay blocage yu ci amoon tey jii am na loo xamante ni weesu nañ ko wante am na lu des ba léegi li des nag parce que euh, ONAS interpellé nañ leen ci surtout que paiement ñi nga xam ne donc ñoom ñooy PAP yi les personnes donc affectées par le projet nga xamante ni loolu dina décanté lu bëri yaakaar naa ne loolu war nañ ci gën a lu def ci ay jéego pour que balaa xañ na nawet bi di installé wu bu baax a baax a baax donc ñu mën a avancer ci travaux yooyu pour mën a en tout cas wàññi difficulté yi nga xamante ni xalaat nañ ko bu fekkee màggal gi ñëw na donc en yooyu ñu ngi ciy ñaax ñooñu bu baax a baax su loolu weesoo donc ñuy gërëm ñëpp ñi nga xamante ne teewoon nañ ci ndaje mi euh, di leen sant bu baax a baax également surtout contribution yi parce que ñi fi wax ñëpp yaakaar naa ni ku ci nekk wax na ak Pastef wax na également li nga xamante ni donc bëgg na ko def ci yéeneem surtout ci màggal gi pour que donc euh, événement boobu vraiment am euh, jaar ci ci ci ni mu gën a mucc ay